xam nga Sénégal dafa am affaire yoo xam ni ci réseaux sociaux yi lay jóge ak nit ñi di wax boo dikkee ñoo naan la waaw ku ànd ak président Macky Sall nit ñi da da dan lay sanctionné du gagné xam nga wax boobu wax bu yàqu la président Macky Sall ba mu toogee ba léegi amul benn élection boo xam ni perte na ko bu gars yi demam ñoom bañ naan day perte mu dóor leen teg ci suuf parce que am na programme am na lu mu liggéey am na lu baax am na lu baaxul parce que yàlla rek. moo moo matal matalul am na xale yi ñu fi nekk ñu bari amuñu liggéey am na ñoo xam ne fañ nekk mën ñoo faju am na ñoo xam ne bëgg nañu gis seen bopp ci liy xew ñëpp amuñu mais am na lu baax lu mu def nit ki da nga koy nangul lu baax li mu def ba pare ne lii des na lii mën nañ ko corriger noonu la am réew di demee am na luy xew aussi ci jamono bi suñ toll nii ñuy toog di dëkkoonte ñoom opposition bi dama koy tudd Ousmane Sonko mi ngi toog di dëkkoonte ak président Macky Sall ñii ngi toog ku ci nekk di def nii sa dënn xam ngeen président Macky Sall ak Ousmane Sonko moomuñu Sénégal moomuñu ko président Macky Sall dañ ko jël ne ko yow yaay président de la république Sénégal demal nga liggéeyal mi ngi def kamt lay kàttanam di def li mën nit ki nag mën naa d' accord ci lii kii bañ a d' accord ci lële mais dafa mandat dañ ko ne da ngay jot Sénégal ba 2024 buñ boo fa àggee ñun ñu seetaat ba xam kan li ñuy jëlaat pour que mu dem fi mais fii ba 2024 yaa fi war a nekk kon kooku su fekkee dafa war a nekk ba 2024 kenn wër te toog ne damay taal réew mi jël pouvoir bi par force loolu doxalul démocratie parce que li fi xew li 8 mars te ngeen seen bët 8 mars ñëw na jàll na mais ñi si nga xam ni ay jigéen leen seeni doom fukk ak ñeent ñoom ñoo faatu ñooñu xam ngeen ne loolu aw tiis bu metti ci ñoom te ku ci nekk bala nga waroon xam loolu mu daloon la yow yàlla na leen ci yàlla musal mais ku sa doom bokkoon ca ña dem yow dootoo foyee problème Sénégal ñuy tiitalaate pour taal réew mi kon opposition mën nga ko def mais opposition lan la mooy da ngay ñëw génne programme bu waaj waxee mbay mi nga ne koy ngay defee mbay mi baaxul man bu ma fu dikkee nii laay defee mbay mi nii laay defee njàngale mi nii laay defee napp gi bu ko defee Sénégal yi déglu la bu wootee jotee boo gën kii fi nekkoon li ngay def ñu jël carte yi fal la loolu mooy jàmm ci jàmm ci la réew mi mën a demee mais doo toog di dugal ci problème mu nit ñi ay problème mu xeet di ci dugal ay problème mu euh, violence ay problème mu saaga di tiitalaate boo tiitalaatee nit ki mu wàcce ay nitam nga wàcce say nit mu nekk guerre civile ci Sénégal soxlawuñu ko te gis nga am na daay yoo xam ne boo ko xasee ba taal doo xamante ni noo koy fayee gis ngeen wii mars gis ngeen ñu doon daw di toj kër yi mujjoon na ñoom xameetuñu xoolal de xameetuñu ku bokk ak Macky Sall ku bokk dafa dañ doon toj di dem rek ak di lakk am na ñoo xam ñi tiitoon nañu parce que oto yi ñu ngi daw di dugg ci biir quartier yi di fu ñuy jaar ñuy sàmba booy yi dug ci biir ñoom li leen intéressé mooy toj alalu jàmbur sàcc alalu jàmbur xamuwuñ ku nekk ci opposition ku nekk ci opposition. kon loolu nit ñëpp war nañ cee téye seenu bañ cee bokk ñuy def vote boo xam bi dañ koy jaarale ci yoon parce que violence bi képp ku koy yëkkati bis bu demee ba àgg ci yenn proportion ya di nga bëgg police ñëw di la protéger te police mënta nekk fu nekk te sambaay booy bu nekk mën naa régler comptam ci biir kii bi am na wenn wuyu woo xam ne bi mën na ne man daal daan dancaam mii man moom laa doon wut profité ci affaire attaqué kër dancaam ñu jékki-jékki kii attaqué kër kële kii lakk kër kii kii lakk kër kële ku ko yëg réewum senegal laajul loolu réew moo xam ne mii lu bari dañ ko fee war a defar xale yi bëgg liggéey jigéen ñi bëgg liggéey nga ñëw ne da ngay taal réew ma yow dimbali woo boobu réew nañ leen waxante dëgg politique bi mën nañ koo def ku ñu neex ñu fal ku ñu neex ñu folli mais kenn waru koo def ci ay bakkan yuy tuuru ñu ngi nii di feete le 23 juin 23 juin bi ñoom ñu ngi koy feete may man 23 juin duma ko feete parce que li tax duma ma ko feete 23 juin ay bakkan war doon na ci 23 juin considéré wu ma ko démocratie war a toog di am un événement comme le 23 juin parce que dañu war a man di voter jàmm am di dem ay élection jàmm am xeex du am bakkan du wadd bu demee nag ba bakkan wadd ñu toog bis bi bakkan ba bakkan waddoon ñu ne nag bis boobu dañ koy feete mi ngi mel ni le 8 mars bu demee ba ca kanam ñu ne nañ feete le 8 mars te fukki nit ak ñeent deec fukki nit ak ñeent deec nga ne da nga koy feete man du ma ko nangu kooku dama koy naqarul man di wax ne lii am na fi waratu fee am c'est ça mon comportement et te loolu xalaat ci 23 mars wi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi koy bëgg a feete majorité bi nee dañ koy feete ñoom place de la nation opposition nee nañ ñoo ngi koy feete ji ca boor stade waa Y en a nee na ñoo ngi koy feete ji ci booru benn terrain de basket muy am ñetti feet la ñuy def ci benn bis boo xam ne bii man d'accord ma ci boobu bis parce que bañ koy def maa ngi ci président lay Wade ñun lañ bëggoon na wàcce ba tuur fi ay bakkan kon du ma ànd ak ñoom di feete loolu feetewu ko tey feetewu ma ko ëllëg d'accordu ma ci démocratie warta ànd ak ay bakkan yu wadd 8 mars du ma ko feete 23 juin du ma ko feete dama mu leer nañ